asalaamaaleykum euh, mbokk yi téléspectateur Rio Plus euh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax yéen ñi safu Rio Plus ñu ngi leen di jaajëfal tey nag yéen ngi seen émission yor-yoru koor yor-yoru koor nag doo ko déggee dañ lay fekk fi nga ne waxtaan ak oustaz bi tey nag ñu ngi dalal oustaz Abdou Aziz Ndoye def naa kooku kenn du ko présenté fi nga xam ne mooy Tëngéej oustaz di peuple la ko gars yi di waxee macha allah daay koy bàyyi rek mu daal di nuyu ak suñu mbokk internetu Rio Plus oustaz ñu ngi lay nuyu. Euh, alhamdulillahi lazi jaala haza shahra saydu shuhur nacmuduhu wa nastacinuhu wa nastacfiruhu wa naudu billahi min shururi anfusina wa min sayyiaati acmalina man yahdihi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wassalaatu wassalaamu ala saydi jinsi walbachar sayidina wa nabiyina wa xabibina wa shafiina wa mawlana muhammad sallallahu alayhi wa ala wa ashaabihi wa xulafaihi wa man ihtada bi hadiyihim wa man tabium bi ixsaanin ila yawmi ddiini wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu mastallah oustaz mi ngi noonu tey nag ñu bàyyi ko rek mu daal di gi li am solo si wàllu koor gi oustaz tey ji tey lan nga ñëw indil tey waaw euh, ci lu gàtt rek mm-hmm. yàlla dafa wax ci alquran ni chehru ramadan lazi unzila fihi alquran mm-hmm. kama unzila fihi tawrat mm-hmm. wa unzila fihi al injil kama kutiba ala lazina min qablikum laallakum tattaquun kutiba alaykum siyam <laughs> yàlla subhanahu wa taala dañu nekk ci weeru koor te dafa waxoon rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam muhammad ne ko maa farataal koor ci yow ak ci sa xeet na ma ko farataale woon ci yontu yàlla Moussa yontu yàlla Iisa muy Jésus et que cette année Dieu a fait mu am une coïncidence entre le carême et le ramadan kon ni yàlla farataale woon ci Iisa ñu gën ko miin ci Jésus noonu la ko farataale ci seyduna muhammad mu ne ko ni ma ko farataale woon ci ña jiitu noonu laa ko farataale bis ni tey ci yow mais bëgg naa nga xam itam ni ñooñu ci seen époque ci wee seen weeru koor laa jëloon ay téere jox leen yàlla itam wàcc alquranul karim ci weeru koor mais pourquoi xuddaan c'est un chemin boo xam ni moo ñuy éclairer fan lañu ñu war a teg sunu tànk yan ñooy ay recommandation alors que le Coran il est régi par trois cent soixante lois si la ñuy tënku muy sunu constitution bi ñuy wax def leen ak bul def waaye damay jëkk ci xamal la lan mooy sawmu muy koor sawmu mooy nga takk sa biir sawmu mooy nga takk say bët waxin la parce que Dieu il parle en image et en parabole qul lil muminina yaghuddu min absaarihim wa qul lil muminati yaghdudna min absaarihinna fii nag lañ ko gën a soxla xam nga koor bu fekkoon takk sa biir bàyyi lekk ak naan rek la kon dana yomb mais dañ la ci am yeneen luñ la ci tegal mooy say bët bu mu xool lu xaraam film yi ñuy seetaan ci koor gi pour rey temps mu am ay acte obscène boo ko xoolee yàq nga sa koor jëw dang ko war bàyyi ràmbaaj danga ko war a bàyyi yooyu yépp sa nopp bi waroo ci dégg lu xaraam say bët waroo ci xol lu xaraam kon sëw mu baat bi tekkiwul xiifal takk sa bët rekk mais yooyu yëpp danga ko war a wan gannaaw bu weeru koor duggee nga jóge ci sawmu nga ñëw ci ramadaan ramadaan mu ngi jóge ci baat bu ñuy wax rëmdu mooy ni yow bakkaar bakkaar yu bari lool léegi gis nga yàlla pour bañ a tooñkat dafay teg balance soo defee benn jëf bu baax mu jël benn mat teg ko ci balansu benn jëf bu bon benn jëf bu bon day jël en général benn matt bo benn matt bu bon mu teg ko ci balance su nga jëf benn jëf bu baax mhm. mu jël dix matt teg ko ci balansu su fu baax hmm, man jaa bil xasana fa lahu am saliha wa man jaa bi sayyiatin fala yujuse ila mislaha yàlla baax yàlla ne boo indee benn bu baax hmm. damay indi dix matt tuyaaba teg ko ci sa balance benn jëf ju bon ma jël benn mattu bàkkaar teg ko ci balance gauche loolu avant weeru koor la man jaa bil xasana fa lahu asru amsaliha wa man jaa bi sayiatin fala yujuse ila mislaha addunay dox ba weeru koor ñëw yàlla ne sa compteur dama koy yóbbu ni ñu naan remettre la compteur à zéro non yàlla day yóbbu compteur bi à dix man shahida minkumul shahra falya yasumhu yow boo fekkee weeru ko rek fekke nga ko yàlla dimbali nga dund am bakken am xel dofuloo feebaruloo te fekke rek nga ne am naa yéene or nee na day yóbbu compteur bi dix allah te dix la mooy won limite bi li mu la doon fay mhm. mu ne désormais alxasanaatu jëf ji ma daan fayee dix mhm. désormais bi ashrin dix lay tàmbale ila sabi miatil xasanaati jëm sept cent tuyaaba mooy benn jëf bu baax bi nga doon def léegi yàlla du jël dix matt teg ci balance tuyaaba sept cent matt lay def jóge bi ngeen jógee euh, Rio Plus ñëw ba fii coono bi ngeen def ñëw sama kër gu mag gi jóge fa ñëwaat ci sama kër bu ndaw bi jéego yooyu yëpp kullu xutwatin ngir sàkku xam-xam nit ñi jariñu ci boo leen ko divulguer aussi képp ku ko seetaan jariñu ci nombre de personnes tu multiplies par ce nombre de personnes la ce nombre de personnes ti multiplies par 700 bu dee 1000 personnes la mu doon 700000 par benn araf laa la wax ñu def ko ay ay matt teg ko ci sa balance ci balance su sama caméraman bi. Mhm. teg ko ci balance su ndey mag ndey. ndey màgget macha allah ah. donc. parce que man dala ala xayrin fa lahu mislu ajra failihi ku tegtal nit lu baax ba ñépp a teg ci bët jëfee ko jariñoo ko mhm. yàlla nee na kooku tu multiplies le nombre la nombre d'internautes mhm. si seen jëf ju baax multiplié par nombre de jëf ju baax lépp ñu calculer ko daal di ko ci palaatam ne ko yéen Rio yéen a moom lii muy benn mhm. kon alxasanatu bi ashrin ila sabi miatil xasanaati benn jëf ju baax dix matt la woon mais day yóbbu par sept cent mattu tuyaaba ñu teg ko nii léegi nag mattu bàkkaar yi nga xam ne par benn mattu bàkkaar lañu doon teg bu ramadaan duggee dañuy jël mattu bàkkaar yi di roof ci taal bi muy lakk ñu roof ci taal bi bu lakkee ba doon dóom en fin de compte bu ñu waree mesurer balancer dóomu taal ak ni mu oyofe ak par ay 700 mat ci balance su tuyaaba fii ay dóomu taal ci balance su bàkkaar ñoom ñaar boo leen peser ban mooy gën a diis bii mooy gën a diis loolu mooy ramadaan pour nit ñi xam ne weer wi ñu nekk boo dégg ñu naan mooy weeru yërmande mooy bàkkaar ya nga defoon lakka nañ ko ba doon na doom kon bu ñu génnee ci weeru koor mhm. bàkkaar daanaka day jeex dafay set wecc waaw léegi nag mhm. waaw amatoo bàkkaar waaw mais ok mais ñun bugg ñu dem première àjjana <laughs> àjjana huit la dañu bugg a dem un deux trois quatre non boobu neexuñu cinq neexuñu huit euh, huit moo ñu neex huitième mm-hmm. àjjana mooy ba gën kawe macha allah noonu mu amee àjjana bu gën a kawe noonu la amee safara yu gën a suufee mooy occasion bu mel nii nga profitoo ci nag di bàkkaar yàlla daf lay mere yonent bi jéppi la l'islam jéppi la ñu nekkoon góorgóorlu leen ci la afwa kii nga xam ne am lante woon ngeen jombul tooñ nga ko mhm. te yëguloo ko jarul nga naan kon mais maa la defoon nangam déedéet nee ko rek baal ma mhm. ax mu ne la baal naa la waxusil afwa kii ne baal ma moom itam na jëfandikoo al afwa wa amur bil urfi bu ci yem digaleel gaa yi ne bu weer yu ñëwee nit ñëpp di jéggale ñu yaatal xol yi yaatal ko ndax yàlla xajul ci sunu kër yi lu kër gi rafet rafet lu mu yaatu yaatu yàlla xaju xam fu ma fii yawma laa yanfau maalun wala banun ila ma ata allahu bi qalbin salimin ci xol bu laab xol bu sell rek la yàlla mën a dugg ñuy jéggalante wa amul bi loofi wax riddi ani jaahiliyin am na ñoo xam ne gëmuñu jànguñu ils sont inintelligents pour ne sont pas intelligents ñooñu le wan leen gannaaw te itam bayil xel ni jamono ji maa ngi koy wax barki démb nit ñaa ngi koy tuumaal mais jamono deful dara ñun ñi ko dëkkee ñoo def dara kon c'est une occasion pour nous autres musulmans mm -hmm. de de communier mm -hmm. avec la paix jéggale jëllale dafa am solo ak fédatal jaayil xel ni walaysa xayrul wara yajzi bi sayaatin yaafu wa yashfau shafan an musihimi mam xaaji malik radiallahu taala anhu walaysa xayrul wara yajzi bi sayaatin yaafu wa yashfau shafan an musihimi le meilleur des hommes mm-hmm. laysa xayrul wara le meilleur des hommes <laughs> si masul fayunte bi sayyi'atin ci benn jëf ju bon buñ ko def masul fayunte moom rasulillahi yaafu da daan baale waaye de wóor na ko ne yaa ngi koy tooñ te mën na la duma mhm. ndax ku yàlla dooleel bu la gesoo rek nga daanu mais day fenatal bàyyi la kookoy sayduna muhammad yaafu wa yashfau shaf an al musi ihimi seen jëf yu ñaaw yi daf ciy teg bët ba pare bàyyi leen nax seen borom du ci yem sax daf leen di baal wax fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri daf leen di baal parce que ñoom dañu xamul kii est Seyduna Muhammad kon pour te diir que weeru koor bi boo déggee ñu naan weeru yërmande mhm. mooy fukki fan yu jëkk yi dañu ko dañu ko séddatle ci ñetti pàcc vingt neuf jours la voir même trent bu fekkee gisuñu weer wi mhm. fukki fan yu jëkk yi ñu ooye ka raxma muy yërmande fukki fan yi ci digg bi muy maafira mooy jéggale bi ma la doon wax mhm. fukki fan yu mujj yi mooy itqun mi na naar xam naa fa laay jàngalee rek mhm. nit ñi comprendre Abdul Aziz quelle est sa philosophie de itqun mi na naar yi itqun mi na naar mooy nga goreel jaam bi ci safara moo la tere ñëw ca jàkke ja xaalis bi ma ameel moo la tere dem marché mhm. weeru koor ñëw na ñu ne fukki fan yu mujj yi ndem yàlla dimbali na xam nooy def da ngay ñëw ba ba ci man. Mm-hmm. ne ma imaam yow imaam yaa ma ameel xaalis. Mm-hmm. man naa la ameel bokk. Mm-hmm. nga ñëw ba ci man. imaam yaa ma ameel. ma ne la waaw nga ne ma léegi xaalis bi nga ma ameel. ci weeru koor wi comme yàlla def ne day jéggal jaam ci safara. man jéggal naa la ko. Ah, parce maa ngi woon ci safara. macha te ubbeeguñu safara. Mhm. xam nga loolu mooy lan. Mhm. mënatuma woon dem marché. Mhm. mënatuma woon dem jàkka ja mënatuma woon dem nattaba ba. kon lii may jàngale foofa mooy ku ci am leen tiix nit bor. profitool ci weeru koor bi ndem yàlla bàyyiwu la nga dem ba ca moom nga jéggal ko bor bi bu ëllëgee yàlla dugal la àjjana jéggal la musal la ci safara macha allah imam kàddu yi rafet na macha allah imam kàddu yi rafet na mi li mooy lan waay mbaa mi daa noonu c'est pas une ah, bombe baax na li mooy <laughs> tamru tamru tamru dañu xam nga yéen a ngi utaat yeneen tuyaaba <laughs> dañu wax li tàndarma wala wala bi tamrin donte le benn doomu tàndarma la mhm. nit woor ba ngoon jot nga jox ko ko gëmal ni moom yoolu koor ga mu amoon yàlla defal na la Euh, di leen gërëm di leen sant te di leen wax itam bon vent te di ñaan euh, fa tabaarakallaahu euh, seen télévision en ligne bi ñëpp di ko seetaan hmm, mu jëm kanam ndax c'est un plus hein mhm. kon nag na gën a yokk gis nga li ñu doon waxtaane yëpp mhm. plus rek la plus <laughs> weeru koor plus la li ngeen defaat c'est un plus ndax yàlla li mu war lanteex ñun mhm. mooy nga def lu baax mu fay la sa lu baax mhm. comme weeru plus la ñu def mhm. yéen ngeen toll ci plus yàlla yàlla fay leen macha allah imam si foofu rek euh, question bi nag benn question la rek la jàpp est ce que dooñ ko mën a expliquer ndax sama genre am na ñoo xamante ne xamuñu may ñu loolu rek waaw faratay jàpp dafay tënku ca naka alquran waxe iza qumtum ila salet yàlla moo wax looy farata rek ca yàlla la luy sunna ci sayduna muhammad kon farata bi mooy bu ne am nga intention isa qumtum ila salaati faaxsilu wujuhakum comme boo amee intention mooy yéene am nga yéeney julli ji la wax mais kon yéeney jàpp moo jiitu mhm. gis nga l'islam lépp luy la mën a wax mhm. buñ la buñ la yeewoon trois heures di matin ne la wax ma farata nangam mhm. soo yeewoo rek nee ko yéene lépp lu ñuy def ci diine première farata mooy yéene kon isa qumtum moo dugal yéeney jàpp faxsilu wujuhakum première ordre bi yàlla jëkk santaane mhm. mooy raxasal sa kanam gis nga loxo yi ngay raxas ni ñett mhm. du farata mais boo xësee ba tàmbali raxas sa kanam mooy première farata farata boobu day àndax yéene bi kon raxas sa kanam mhm. fax si faxsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ngay raxas say loxo ba ci conc li kooku tamit farata la wamsahu bi ruusikum nga jël si sa jëf yi ba si sa ginnaaw waxuma retour bi de ale bi nii mu dem ba fii mhm. farata la wa arjulikum raxas say tànk ilal ni ba say doojoor loolu tamit farata la nga toppante farata yi farata la bii war jiitu jiitu bii ci tegu tegu donc en général yi ñooy farata yi jàpp yeneen yi ci dugg yëpp ay sunna la dégg nga wax ji donc kanam si la raxas gémmiñ dugg si la raxas ba kenn dugg si la ay bët dugg si la ay nopp dugg yooyu yëpp nit ñi foog ñu bàyyi ko xel te mu nga dellu woon nag ca maam aadama keroog ba mu demee yàlla tere ko moom ma xawaa ne ko laa taxraba haadihi shajara bu leen jege garab gi ma dóoraat la beneen jàngale <laughs> ñu dox tànk yi ñu doxe woon dem ca garab ga mhm. garab gi daf daf leen tiim yéene ba ñu am dem mhm. te yàlla tere woon leen mhm. kon da ngay effacer boobu mu yéene ñu jël seen loxo yóotu bi ñuy yóotu garab gi seen bi ñuy dem seen kanam moo jublu ci loolu am na yéene mais kanam gee ci jublu kon ñu raxas kanam yéene raxas kanam jël loxo def doomul pom bi du loxo bi rek mais yëgsi na ba fii yàlla ne kon raxas leen ba ci conc bi ñu def nii yootu sex kon loolu yëpp ci kanam la bokk dégg nga wax ji de donc bopp bi garab gi tiimoon mhm. nga raxas jële ci jë dem ci gannaaw tànk yi ñu doxoon tamit maa ngi lay yëgal ni mhm. soo dee jàpp Mm-hmm. ida tawadda al abdul muslim mm-hmm. gasala wajhahu xaraja min wajhihi kullu xati atin nazara ilayha jullit bi fu muy jàppee ba raxas kanamam bépp bàkkaar bu kanamam gisoon yàlla jéggal na ko ko wa isa xasala yadayhi fu muy jàppe ba raxas ay loxoom xaraja min yadayhi bil maa i na ndox may raxasee loxo yi bépp bàkkaar boo xam ne ay loxoom ba tasha téewoon na ko noonu la bàkkaar bi sete isa xasala rijlay ni bu raxasee ñaari tànkam mhm. bépp bàkkaar bu ay tànkam doxoon yàlla jégal na ko allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam masha allah masha allah am na solo am na solo imam am na solo kon boog ñu bàyyi la rek nga daal di tàggatoo ak suñu mbokku Rio internet Rio Plus waaw euh, mooy li ma waxoon léegi rek euh, di leen ñaanal afiya tawfiq wa taysir mhm. di ñaan jàmm ijal ma nasha ma fi lima tashaw kay la yasira ma asha mu xal fi lima tashaw mhm. faltuf bina fi ma tashaw ma tashaw na illa an yasha allah rabbul alamin comme Rio Plus la ñuy ñaan tënge ci boppam c'est une déformation mhm. ndax on a subi beaucoup de euh, colonisation ak Rio fresco la muy tefes gu sedd gi kooku ñenn la woon ñii ne espagnol yi ñii ne noono portugais yi la ah, ku ci nekk daal jaar na fi kon tëngéej ñun ñoo ko moom li may dénkaane mooy ñu jàppale ñi fi nekk liggéey tëngéej dëkk bi dox waxuma waxu politique politicienne mais engagé wu pour dëkk bi mën a dox nit ñi itam ñu yar suñuy doom ci diine lislaam ndax lu dul loolu rek perte la kon di gërëm itam euh, waa Rio Plus mhm. te di leen ñaanal qu'ils aillent de l'avant yal na ko yàlla def ah loolu daal euh, mooy kàddu bi gàtt bi sunu koor ñun ñëpp yal na ko yàlla nangu su ko nangoo mu ful ko te ñu fekk ay déwéni déwén te seen euh, euh, web TV bi mu mm-hmm. gën a yokk lool ba àdduna bi yëpp man si jot ngeen am succès yi sax yu raw loo leen yaakaarul waaw di invité internet yi ñu koy xool bu baax a baax a baax macha allah macha allah mi ngi noonu lii daal leen indiloon si yoor yooru koor ak oustaz Abdou Aziz Ndoye xanaa ñu daal di jox daje ba vendredi bi ñu ak beneen oustaz jërëjëf ñu ngi leen di jaajëfal kele laa àndaloon cameraman bi maa ngi lay jaajëfal bu baax imaam yow di la jaajëfal bu baax sa disponible ndax bi ma la ko waxee tegoo si dara da nga ne ma lépp luy yoonu musulman rek lépp luy yoonu xam-xam rek macha allah bi ñu ñëwee di ñu ko leeral te defe leer na si ñëpp macha allah am na loo xam te lu bëri xaw ma woon tey laa xam imaam daal waxtaan bi am na solo daal macha allah macha allah